yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people del xool lool waaye nag yàlla jaam bi rek la la la la fi nekkal lépp lu ko jaam ñaan rek te ñaane ko na nga ko war a ñaane mu may la ko loolu moom ak cant rek lañ ciy def ak di ñaan yàlla su borom bi gën a dolli. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw macha allah alors euh, waxoon nga ko ah woon nga euh, du ñu tëj Ousmane Sonko. Mm-hmm. waaye euh, yëf yi mu mel ni dafa rax baatin. Mm-hmm. et puis sénégalais yi démb. donte nag dinañu xaw a joxoñ baaraam souvent li fi xew doy na waat yi ak yàq. mu mel ni li liñ doon bañ am na deret tuuru. waaw donc li yàqu bari na waaye mënoon naa gën a bari li tuuru ci deret bari na mënoon naa gën a bari mënoon naa am ñu faatu ñu baree baree bari. waaye gis nga sunu borom euh, mbir mën na nar a xew nga ñaan yàlla mbir moomu noonu mu wayaf sa boroom faw mu am yum la tegal ay sanction yeneen la lii ak lii ak lii ngay def boo tëddee xool sa li ngay def nga ñaan yàlla mu la defal nàngam nga génne sarax boobu ne nañ ko def nit ñi nag def nañ ko mm-hmm. biñ ko defee gis nga ne yàlla wis na ndox mu sedd donte am na nu mu deme waaye mënoon na mënoon naa raw li fi xew lépp mënoon naa mënoon gën a metti waaw mënoon naa romb lool lool sax ndax euh, li tax gis nga sarax lu am solo la waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin euh, yàlla dogal na doon na dem gis nga ni mu demee ak la ci xew te bii moo gën a metti mboolem yi fi mas a jaar mm-hmm. waaw que bii dafa am Ousmane mu tëdd. waaw ah, moo xamante ni bii dañu gis ni euh, image yi donc dem ba tey ñu koy gis Ousmane tëdd ci euh, kaw lal hôpital. Mm-hmm. mu mel ni yaakaaruñu woon ne quand même sax projet bi dina demee nii ba egg ba ci Ousmane ñu koy jël ba fii ñuy wax ak yow dafa mel ni mu ngi hôpital. waaw ok xam nga fi mu ne nii euh, Ousmane dafa bëgg loo xam ne yombul li bëgg ñun ñu koy jàppale xam nañ lim bëgg yombul muy muy doon njiitu réew bëgg. bëgg a jiite senegal gépp nekk seen kilifa kàddoom rek di fi dox loolu yombul dafa am dafa am nguur soo ko soxlaa lu càggi ne da ñëw rek ñu ne la kaay dugg dana am coono yooyu jànkonteel waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin euh, ñaan yi bari na waaye nag damay leeral tuuti ne nit ñi bay bu seen xel dal bu baax ñu xam ne àdduna euh, bari na lu fiy xew loo xam ne lay tax na mu war a méttee dëgg-dëgg du ni méttee mooy sàkk sarax ak ñaan amut lu mu mënul ci àdduna Ousmane it mbir mii mënoon naa tar lool ci moom waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin yàlla def na ci ndox mu sedd mu ngi lal hôpital tëdd waaye am na ci loo xam ne xëy na duñ ko wax ci kaw nit ñëpp dégg ko hmm? ndax stratégie la moom lañuy doxe doxee hmm. te la ñuy duñ ko wax ndax booy xëccoo nit ak dara point yi ngay teg sa tànk waru ko xam da xam nan ngay def rek stratégie booy mën a doxee stratégie boo mën a doxee ngir am li nga bëgg moom muy def na muy def ngir am la mu bëgg. est-ce que euh, itam projet boo xam ne dañ koy renvoyer jaroon na lii lépp dëmp. non xam nga lii kenn mësu koo gis waaye ki mu dal ci kawam la Ousmane du nit ku ndaw Ousmane ku xam Ousmane rek dëgg nga xam ne du nit ku ndaw Ousmane du nit ku ndaw. te nag mënut ñàkk ku mel ne moom li dal ko dafa bëgg lu kenn mënut a am jafe na lool ku ko bëgg danañ la dóor ba ngay bëgg dee da nga dugg kaso ay yoon waaye nag moom alhamdulilahi rabbil alamin fi ñu teg suñu tànk bu ñu ko teggiwul insha allahu point bu ñu ko tegal daf koy lalli jàll billahi maa la wax lii point bu ñu ko tegal lu mu tar tar tar dañ koy jéggi jàll ci kàttanu yàlla euh, dëgg la nag maa ngi euh, nuyu mbooleem koo xam ne patriote nga ak foo mën a nekk ci àdduna ndax li may jot ci ay appel kenn xamut nu mu toll bari na ñii ngi jooy ñii ngi ñee ngi sant ñii sant dañu xam ne maa ngi ci kanamam ñii jooy mooy yërmande moo leen di dal jàkka yi jumaa yi ñi ngi ñaan même ajjuma yi tey jii jumaa yu baree baree bari dañu def nañu ay ñaan ñun ñi am na sarax yoo xam ne joxe nañ ko ci bisu ajjuma bi ngir ñu ngir ñu ñaanal yàlla moom mu jóg ci jàmm dëgg la am na yu ñu santaane dañ ko def dem ñu def ko ngir yàlla may ko jàmm ndax eh, jullit xàqan la taalibe la wëlëre la lépp la xarit la. mais xanaa tawat ji dañ ci tiit kon xanaa tawat ji waaw tawat ji moom tawat ji moom tiituñ ci ndax nit naan na posen sax te gis nga ruuxuk doomu aadama. sëñ bi ñu bari dem ñu ngi wax loolu ñu ngi naan sëñ Ousmane eh, boo sàgganul dañ ko posone am na posen bi am na waaye dama lay xamal ne la. nit naan na poison te faatuwul gis nga doomu aadama lu naqaree faat la loolu nit ñu war a xam doomu aadama lu naqaree faat la doomu aadama lu naqaree la man nga gis yu yu yu yu rëy yu yéeme yu dal nit waaye dafay mujj jóg doomu aadama ruuxu doomu aadama yàlla mooy ki ko yor nekkul ci loxob doomu aadama déedéet nit wopp na fi wopp jox na ne ñëpp dañu naan faatu na mu jóg. nit wopp na fi kenn xalaatu ne dana faatu mu faatu kon kon ruuxu doomu aadama mu ngi ci loxoy sunu borom subhanahu wa la nekkul ci loxoy mbindeef yàlla xam gum xam doomu aadama ak xereñu doomu adama ak soxoram moo tax lu bare bari jox ko ko moo tax yàlla dundu doomu aadama ci loxoom la nekk deeg doomu aadama ci loxoom la nekk waaye nag ala kulli xaal képp koo xam ne dund nga danga nga faatu waaye nag lii mu nekk incha allah rabbi ci kàttanu yàlla yàlla mi nga xam ne moom moom ay mbiram dana ko yëkkati ci jàmm a doon maa la wax te dinaa ko incha allah ci kàttanu yàlla incha allahu rabbi feebar bi dafa rax mystique potion la. non non non du du mystique potion la du mystique potion la. Hmm. toxique la bu garaaw waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin yàlla baax na am na ci loolu duñ ko duñ ko yëkkati ci kaw nit ñi xam ko waaye li wérte wóor daal moom incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla képp koo xam ne yaa ngi koy jàppale na sa xel dal mbir mi ni mu demee nii ñëpp gisandoo ko nii ñii lay ñibbiwaat këram ci kàttanu yàlla insha allahu rabbi te Ousmane lii reyu ko donte nag am na wérdi yu nekk ci yaramam. Hmm. donc loolu duñ ko duñ ko révéler di ko wax ndax secret la donc am na ñoo xam ne xëy na mën nañ caa jaar xam nañu ko am na ñoo xam ne sax ñoom xam nañu ko ba tax ñu teg ko liñ ko teg ndax xam nañ ne am na yoo xam ne munu ko noyyi moom mun a takk masque lu yàgg arrangé wu ko baaxul ci moom jël nañ masque jox ko ko pour jëndal ko ko pour mu ko takk waaye arrangé wu ko ndax bu ko takkee lu yàgg dafay xëj donc hmm. yooyu tax na ba ñoom xam nañu loolu xam nañu loolu ba tax ñu ñu ñu ñu ñu ñu dóor ko ay lacrymogène yu yu yu wex pom pompe ko sanru gaz boo xam ne gaz bu doy waar la waxuma la itam lañu lañu lañu suy ci kawam waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin nañ santaat su yàlla bu baax xam ne doomu aadama lépp lu mu def mu ànd daf fekk yàlla nangu ko hmm. lépp lu waay di wut hmm. ak lu ma mën doon bu yàlla nangu loolu am du am kon nañ sant yàlla rek te xam ne alhamdulilahi rabbil alamin lu baax rek moo ciy am te itam fa ñuy mujj fa ñuy mujj ëllëg itam xol bu sedd guyi lay doon ñu gunge ko ñun ak moom ba pale insha allah rabbi ci kàttanu yàlla te yàlla la koy defee ak lu mën a xew nag ak lu mën a xew mbir mii ngay gis nii mm. insha allahu rabbi ci kàttanu yàlla lépp loo xam ne dëggal nañ ko ko muy ndëgg sërëx da koy jéggi jàll insha allah maa la wax lii waaw sëñ bi li ngay wax nii ci euh, baatin nga ko teg ci xam-xam nga ko teg waa ci yàgg gi nga yàgg ci noo ci baatin laa ko teg ci baatin laa teg ne lii incha allah rabbi ci kàttanu yàlla dañ koy jéggi jàll leneen la ñuy wax kay moom yeneen la ñuy woote waat waaye yii moom day jéggi jàll li may wax rek mooy euh, xale yi nañu moytandiku def ndànk bañ a yàq yi nga xam ne euh, alali jàmbur la ndax alali yàq alali jàmbur amul amul amul benn njariñ yàq seen alal mm, amul benn njariñ tey lu mën a xew lu mën a xew lu mën a xew lépp lu mën a xew rek euh, ci ci ci ndaw yi lay delluwaat wax ndax impôt yeeg charge yi ngay jënd ak même marchandise yu ci bari ba dañuy mujj yokk ko ndax dañuy yi ñu ciy teg mooy yi ñu yàq li ñu jëlaat tegaat ko ci. ndax mënuñu ko ci xale yi li ñu def. non non d'accord ma ci yàq. Hmm. da d'accord naa nag ñu génn wane seen naqar wane seen naqar nga xam ne am nañu leen naqari ndax ki ki ki nga xam ne dañ ko teg seen kanam kooku lañ jël tonal sonal ko ci yenn coono yi te gis nga ne euh, li koy jàppale ci ay nit ñoo xam ne xamuñu ko duñu ay sax ay sax ay sénégalais man dama ci déglu ay burkina burkinabé ñoo xam ne dañ may woo téléphone ay gambien ay américain di woo di jooy xam nga lekkuma tey nelawuma loolu beneen affaire la man damay toog yàgg sax sama xol bi dafay mujj jeex ndax euh, appel yi may jot saan ñuy naqarlu di jooy dafa dafa dafa bari dafa bari tellement ba parfois sax damay teg sama téléphone bi du ma ko wuyu waaw ndax rek parfois dañuy maam yow bu ñu waxee ak yow sax da ngay mujj da ngay mujj yow sax sa xol bi day mujj jeex daal ndax magum jëmm nga xam ne daanaka mi ngi def ay quatre-vingts ans soixante-dix nga di wax ak yow di jooy nga xam ne jooyam yu dara lu dul teg nañu. Euh, doomu aadama boo xam ne victim la naqar wu nekk jafe-jafe yu nekk waaye nag alhamdulilah rabbil alamin euh, dafa am loo xam ne boo ko bëggee faw nga nangoo tegu nguur moom yombul képp ku ko bëgg a nangu foqati faaw nga am fooy jaar yàlla nag mooy ki koy joxee du ko jox nit ki ci ci neen. Mm-hmm. nga am ay coona lu nekk mën nga ko daj waaye sant yàlla rek nag. sant yàlla rek te xam ne mbir mi moom incha allah rabi ci kàttanu yàlla lu muy jéggi jàll la. Euh, en tout cas c'est la première fois ñu gis euh, violence bu euh, mel nii daanaka dundoon nañu ko fi waaye bi ñu dund démb dafa gën a doy waar parce que violence bi dafa àndraxloo lu bare bare bare bëri parce que Ousmane Sonko naam bu ñu daan dund daaw ci bokk ma démb moom moo gën a dund violence moom ci boppam gis nañu ay images yoo xamante ne bii donc Guy Marius Sagna ci boppam da doon intervenir ci biir ngir sauver ko moom mu mel ni démb bundu xataal nañ ko xoqatal. Euh, bundu nañ ko bu baax donc xoqatal nañ ko itam waaye li ma la wax rek moom moo ci nekk Guy Marius nag ndeysaan nit ku baax a ngi noonu man dama ko naw dama ko naw lool lool ndax gor dëgg mi ngi noonu koo xam ne day dem ba jeex gor booy ànd ak nit ki da ànd ak moom ci naqar gor booy ànd da ngay ànd nit ki ci bànneex man loolu laa xam ne nit ki da ngay ànd ak nit ki nga dem ba jeex. kenn ku ne gis na ni mu deme mm-hmm. waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin euh, nañ santaat suñu borom bu baax te xam ne ñaan ku ko gëmul rek yaa ko gëmul waaye ni mu demee heure yi waroon naa fekk ma nga nugg siin waaye nag yàlla du nangu loolu mukk ci àdduna billaahi du ko nangu du ko nangu mukk yàlla yor mbir yi kenn jaam yorul dara amul jaam bu yor dara ci loxoom amul dara li ngay lekk li ngay naan li ngay solo li ngay tëdd mënoo moo ca dara bala nga xam ne nit ki moomul dara mooy mu faatu dañ koy donn kon nit doomu aadama amul dara mënul dara sañul dara àdduna si kenn amu fi dara lépp suñu borom ko moom subhaanahu wa la waaye nag doomu aadama bi yàlla nam mu yëkkati ko ci kaw nit ñi kenn mënu ci dara bu ñëpp jógoon di ko xëpp tal àdduna si yëpp laa wax de jóg dal ci kawam ngir mu daanu te yàlla namm ko duñ ci duñ ko mënal dara ci kàttanu yàlla yàlla moo yor mbiri de mbiri jaam hmm. gis nga mbir mi ni mu demee li ñu ko xëpp nii xëpp ko nit mu jóg munta nekk xam nañ ci lu leer nañ hmm. waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin yàlla moo yor mbiru jaam kenn yorul mbiru jaam ku dul yàlla te nag lu ñu ci man ci ñaan lu ñu ci man ci baatin lu ñu ci man ci wer danañ ko def sëñ bi kon yëf yi toll na foofu ci euh, ci ci wàllu mutit parce que dem nañu bay gis nit ñoo xamante ne mu nee dañ leen bëggoon a faat ku ci mel ni dàmbo ñu gis ne moom itam mi ngi wax ne dañ ko bëggoon a rey démb mu nekk ay mbir yoo xamante ne bii daanaka ñun tàmmuñu ko woon di ko dund fii ci senegal euh, sëñ bi li fi ñu fi ñu fi ñu langaameeti moo yombul rek yow tey jii. Mm. yoral dara sa loxo ma ñëw bëgg koo jël. yoral dara sa loxo ma ñëw bëgg koo jël. Mm-hmm. pour ma jël ko dinaa daj lu nekk pour ma nangu ko pour ma foqate ko loxo pour jël ko. lu tax dafa nekk lu yombul lu yombut moom faw nga nangoo assumer sa ay responsable ci lu bari na lu ñëw rek nangul ne am na beneen nattu bu war a ñëw mi ngi mel na tey jii nga nekk jaamub yàlla boo xam ne da nga bëgg suñu borom bi yëkkati la faw nga nangoo euh, maanaam jël ay ay nattu ndax dañuy wax ne nattub jullit day yokk ay maqaamaam maqaama pour nga yéeg jëm ci sa borom. mbaa muy sippi ay ñaawteefam bisub xiyaamaam. moo tax nit nag am na loo xam ne boo ko bëggee sa diggante sa borom faaw nga am nag loo loo def nag ndax ji boo boo fekkee da bëgg ne da ngaa bëgg nekk amir jiite réew mi. Euh, bëgg ñëpp ca su ñëpp nekk ca kaw loolu faw nga jonkonte ak ay jafe-jafe faw nga jànkonte ak ay problème faw itam nga nat nga jànkonte ak ay nattu lii mënta ñàkk ala kulli xaal xëy na métit bi jaaduwul tar na waaye nag ah moo bëgg lu yombut nag. Mhm. démb lan moo ci nekkoon seen taxawaay yéen euh, yéen nga xamante ne bi mën nañ leen a woowee sëriñ en tant que yow. Mhm. Euh, ñu lay woowee le marabout de Sonko. démb ci bës bi lan moo ci nekkoon sa taxawaay. li mu nekkoon sama taxawaay mooy génnee sarax ak yor sama course ma ci woon beneen taxawaay bu dul génne sama génne sarax yor sama course fay sama téléphone. fay sa téléphone waaw ndax liggéeyal ko moom. jaral na ma lu nekk lu ma mën a ñàkk ci àdduna na ma ko jaral ngir moom mu am ndam waaye nag alhamdulillahi rabbil alamin nekkut lu yomb waaye sant nañ ci yàlla sunu borom subhanahu wa taala bi nu yàlla dimbilee ba li mu bëggoon mu am ko loolu rek lañ ci soxla woon xëy na lii nag mënu ci ñàkk euh, mooy benn benn lu waroon a xew donc yàlla dogal muy mu wàcc ba fii kon alhamdulillahi rabbil alamin ndax bakana mënoon na ca des donc sarax yi moo def effet bu baax a baax a baax fi mu ne nii am na leneen lu mënoon a lu mënoon a xew loo xam ne xewul am na loo xam ne du nekk ak nit ki benn diir bu gàtt te am na lu xew boo ko noyee te laalu la boo ko noyee te la. jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling.